فتاه يا فت قد يري حجبا يا خير هاد هدا خمرا وحيرانا فتاه هبل يا فتحا قد يري حجبا يا خير هاد هدا خمرا وحيرانا دفتر كريم الذي يقري بكن أبدا وأن وانا في توبا يا قد آنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي bokki taalibe yi amaat nañ mbégte toog ci jataay bii nga xam ne jataayu sant yàlla la ak fàttaliku muy jataay boo xamante ne bii nañ ko faral di amal at mu jot fii ci kër cheikh Mouhamadul Moustapha xalifa cheikh Ibrahim borom Mbakke Kajoor ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Touba cheikh Mouhamadul Mountakha yal na ko fi sun borom yàggal lool te dolli ak wërëm waaye àndandoo nag ak njaboot gi yëpp waaye ànd nag ak njabootu cheikh Mouhamadul ci njiitul Serigne Moustapha. mom Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xamne tay ji moy mooy jëwriñu kër Cheikh mohammed Lamine bara ñu ñaan sun borom gën ko fa yagal gëna doole ak wërëm ndigal lolu jamaat lan ci fàttaliku bis bi nga xamanteni bi sëriñ touba khadim rasoul jaaroon Mbàkke Kajoor seeti won way wu tedd woowa ginaaw bu mu joge ci geejgi bis bobu nang mo dëg malat wala doon ñeenti fan ci wéru kor yi moo ñu daje fi ci keur Cheikh mahamoudou mustapha ngir wajal bis bobu di am mbekté di am contenté ci magalu Mbàkke kadior gi te di leen xamal ne lépp loo xam ne am maire da ko faa war a taxawee dib taalube dinañ incha allahu rabbi dinañ ko fa taxawe lépp loo xam ne si daal lépp loo xam ne aju na ci màggal gi ñu ngi ci am kontaan am ci mbégte di wax ñëpp ñu jàppale ñu ci màggal gi incha allahu ba nun nun nun nun ko mën a taxawoo nun ko taxawe woon daaw ñu taxawoo ko ren lu ko ëpp ndax màggal gi am nañ ci kontaan ndax màggal goo xam ne sëriñ tuubaa moo moo ñëwoon Mbàkke Kajoor ne sama waajur laa seet si kon nag màggal gi bu doxee ba ñëw ci suñu loxo dañ cee war a am mbégte am ci kontaante ñu ngi ciy woo mboolem koo xam ne yaa ngi ci région Louga di jiital ci woote bi président ñu ngi koy yëgal mboolem gouvernement bi di ko yëgal gouverneur ak préfet ak sous-préfet di xam ne daal màggalu Mbàkke Kajoor gi ñu ngi leen di woo fu ñeenti fan ci weeru koor ci weeru kori di ko yëgal mboolem ñin àndal euh, Serigne Ibra Ndiaye jiite mboolem conseil yi nekk ci Mbacke Kajoor yëpp ak mboolem chef de village nekk ci Mbacke Kajoor yëpp ñu ngi koy yëgal maire yi nekk ci département département bi ak ak arrondissement bi ñëpp ñu ngi leen ko yëgal. di am mbégte di santaat yàlla bu baax ci jataay bi nga xam ne tey fi lañ toog ngir yëgle wala woote bis bi nga xam ne. bisub sëriñ Mbàkke Kajoor la waaye di bisub njabootu sëriñ Mbàkke Kajoor gépp kàddu yi nag ñu ngi koy yëkkati ci turu daahiratul kiram bopp sëriñ Mbàkke Kajoor bi nekk Mbàkke Kajoor ci njiitul sëriñ Moodu Mbàkke Ndong ak mbooleem membre yi nga xam ne ñoo bokk nekk ci daayir bi yëpp waaye di wax ne ñoom de ñi ngi woote bis bi ci ndigal li nga xam ne jot nañ ko nañ ko daan jote moo xam ca fa bis ba sosoo jaar ci sëriñ Abibu ba ñi topp ci moom ba ci sëriñ Moustapha mii cër ba nga xam ne moom lañ ca am tey jii lañ leen ko gën a jox tey jii lañ leen ko gën a cëral ñi ngi am mbégte nag di woo képp koo xam ne yaa ngi aju ci li nga xam ne mooy biir kër sëriñ Mbacke Kajoor moo xam bépp taalibe li commencé ci kër Cheikh Amar Fall Mbacke ba ci kër sëriñ Mor Talla képp koo xam ne sukk nga ci buntu kër ne aslamtu nafsi ñu ngi lay woo ci bis bi ci xam ne kàddu yii boo ko déggee na nga xam ne mooy sab soññee na nga xam ne tamit mooy bis bi nga xam ne ñun moom képp lañ am bis bi nga xam ne ci la suñ lépp nekk bis bi nga xam ne ci lañ suñ sàkkuteef ngir ngërëmul sëriñ bi ñu am ko niñ ko ware ñoo ngi lay nuyu bu baax sëñ Moussa Mamadou Moustapha xalifatu sëriñ Mbacke Ibrahim di siyaare sëriñ Cheikh Thioro mii nga xam ne moo fi teewal njabootu Cheikh Mouhamadul Amin di siyaare njabootu sëñ Mbàkke Kajoor gépp la ko tàmbalee ci sëñ Amar Fall Mbàkke ba ci sëriñ Abibu ñëpp sëriñ Cheikh Fall Guèye nee na mi ngi leen di siyaare ah ñu ñun la fi yabal nag ñu teewal ko fi ci ak taalibe ak rek bu doxoon diggante sëñ Mbàkke Kajoor ak Cheikh Adama Guèye ah boole maag sëriñ Ahmadou géey moom Cheikh Moustapha Guèye Jamwili ak sëriñ Mahmadan Guèye moom sëñ Baara Guèye boole maag sëriñ Saliou Guèye moom sëñ Modou Guèye mi nga xam ne ku amoon taxawaay la ci Mbàkke Kajoor moo ubbi bunt bi nga xam ne ñun ñëpp ci lanu jaar ba yegg fii ñuy yegg si tey sëriñ bi sëriñ bi ne na mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di siyaare bu baax tey ànd ak yéen bis bi ci ak taalibe ndax lam fa doon xam na ko weesu fa doon fa ab taalibe boo xam ne dafa war a ànd ak yéen liggéey bi muy mbirum Cheikh Adama Guèye ak mbirum sëñ Mbacké Kadior jaxasoo jaxasoo goo xam ne kenn mënut leen a tàqale ndax barab foofee ñu ànd dëkk tey dëkk la goo xam ne sëriñ Tuubaa moo ko boole ñu bokk dëkk foofee ca barab yooyee kon nak lola kenn munu ci ko tak takale motax li mi ngi koy and ak yow ci ak talibé and gi nak weesuwut ñun amuñu fo baat len fa am dal moy top ci seen ginnaw lepp lo xamne ndigal la lo xamne lu ngeen joxe la ñu and ko ak yeen ji lépp loo xam ne ay téré la mu téré ko téré ko njabotam gep waye dal mi ngi koy and ak yeen te di ci déglu seen ndigal te fa tay mbir mu barne xol lol ci boole gi ngeen ko boole ci bir ma ngi yëkëti sama kàddu ci turu Serigne mustapha mi nga xamni mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadul Amin eh, mu yebal ñu ñu ñëw fii ci eh, wetu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy sëriñ Mbacke Kajoor ak mboolem njaboot gi yëpp ñu am ci loolu mbégte di woote ci bis bi nga xam ni bis bu màgg la ci lislaam bis bu màgg la ci yoonu murit ngir xam ngeen ni ku tedd ki bi muy jógee Mbacke Kajoor di ñibbisi Mbacke boobal dafa jëli ki nga xam ni waajur la ci moom di bàyyi tëxam di Cheikh Ibrahim indi ko Mbàkke Kajoor mu yor daara ja wut fa Mamoor Anta Sëli ba sëriñ bi dem ci géej gi ba ñibbi si dellu si waat di ko siyaar si di ko seet si bis boobu nga xam ni mooy ñeenti fan ci weeru korite moom la Cheikh Moustapha mii di woote sëñ Mbàkke Kajoor ko njaboot gi sëñ Moustapha mi nga xam nag moo la nekkal ci njabootuk Cheikh Mouhamadou Lamine Bara di dëkk ngeen dëkk di sa dëkkandoo nga xam ne sëñ Bara bi muy ñëw Mbàkke Kajoor ku tedd ki di ko fa yabal ci maam Amar Fall Mbàkke la ko jaarale mu dalal ko mu am këram ba tey li fi am lépp am fa kon bis bi mënul su ñëwee lu dul wow mbool njaboot gépp taalibe yëpp ñu ànd ak moom ñu ñëw ànd ak yéen màggal gi ba mu mel ni nga xam ni ni la ko sëriñ bi bëggee moo tax sëriñ Moustapha mi ngi woo njabootu sëriñ Bara gi yëpp taalibe yëpp fu ci waay nekk incha allah suñ ci àggeeg jàmm muy ñeenti fan ci weeru korité suñu koré ba am ñeenti fan mooy màggal gi bis bu màggal la nag ndax mooy bi sëriñ bi dellu see Mbàkke Kajoor di seet taxam Cheikh Ibrahima ñu ngi ci wax taalibe yi mbokk yi julli ci xarit yi am ni jàmm ñëpp ñëw ci jàmm maago ci jàmm barakat rasul alayhi salaatu wasalaam jërëjëf asalaamaaleykum ñu ngi nuyu sëñ Moustapha mi nga xam ne moo fi teewal suñ maam suñu waa Mbacke Kajoor ak mboolem waa Mbacke Kajoor gépp te di leen di woote ci turu ci kifteef suñ maam Balla mi nga xam ne moo fi nekk te ci njabootu suñ Mbacke Soxna mi nga xam ne doom la ci suñ Ibrahima Mbacke mi nga xam ne bis bi ñëw suñ Mbacke Soxna gépp daal ñu ngi soñ seen bopp di soññ bokk yépp di xam ne bis la boo xam ne bisu yiw la ci yéene ko mbokki jullit yëpp loolu nag képp ko xam ne ñu maam maaram ak mboolem koo xam ne daal mas nga su ko jub Sëñ Tuubaa te xam ne feeñu woote ci dëkk bee woote bis bi mën ne lépp coono fa la xewe kon nag bis baa ngi noonu ñu ngi soñ soññu ñëpp di ñaan yàlla teewe ko ak jàmm ci lépp loo xam ne aw yiw la yàlla ko yàlla ko yàlla si ak Sëñ Tuubaa kàddu gi nag du gudd Euh, dañ ko yëkkati ci tuuru xëy na man nañu wax sax sëtaat yi ndax suñ Mbàkke Kajoor fi ne ñëpp ay sëtam lañ waaye sëtaat yi nga xam ne dañoo am yéene yi taxawu liggéeyu kër suñ Mbàkke Kajoor te fas ko yéene ànd ak mbooleem ku fi nekk suñ Mbàkke Kajoor te fi jamono yi ñu toll ñu am tawfeex ànd ko Cheikh Mamadou Moussa Mbacke mii nga xam ne yaay ndey ji Cheikh la ñëpp la safoo ñëpp la defoo ñëpp lay déglu euh, yaatu gannaaw lool kooku nag ku ko yàlla tawfeexale nga am ko muy sa kilifa war ngaa sa bopp te góorgóorlu baax a baax góor góor lu ji li jiitu ci liggéey bi mooy bis bii nga xam ne mooy dëgmal si muy màggalu Mbàkke Kajoor di ñeent fanu kori na nanu xam ne sunu bis la képp ku fa ñëw ak lu ca waay mën di def noonu lay jàppale nan jiitu di ca taxaw di ca soññee la ca jiitu nag ci waajtaay yi ku ne xam ne ne sëñ Mbàkke Kajoor alxuraan moo doon ab liggéeyam njabootam yi fi nekk yëpp moo doon seen liggéey kon alxuraan jooju moo jiitu ci liggéey bi ñu ngi soññ mboolem sët yi ak seen i njaboot ñi ko ci man fii nu toog nañ ko fa daal di tàmbali ba bañ a àgg ca bis ba bu buñ ca àggee ca bis ba itam na ñëw ca kër ga eh, yandoo faa jàng ba tisbaar ba sëñ bi yeewinu ñu xam ne loolu mooy li ëpp solo ci bis bi gannaaw loolu itam xam nañ ne eh, am na conférence bu mag boo xam ne sët yi war nañ ko fa amal buñ nee suba la mm, màggal gi ca guddi conférence boobu di conférence bu mag a mag boo xam ne dañ faa war a waxtaane mboolem luy jariñ eh, adduna bi di jariñ réew mi di jariñ gox ba te yàlla dogal ñu tuddee ko magi mag sëñ Mamoor Jaara mu doon koo xam ne it ku ne xam ne wàcc waayam ci yoon wi kon loolu itam na sët yëpp xam ne seen bis la te dañoo ko tudde ay jàmbaari lislam yu war leen fekk si ñu waajal ko bu baax a baax a baax conférence bi den thème bi dañ koo bëgg a def li ñu wax ak eh, jëme ci actualité muy tolluwaayu réew mi ak jamono eh, yëngu-yëngu réew mi responsabilité bi nga xam ne kilifa yi am nañ ko ak taxawaay yi nga xam ne am nañ ko ci jëmmi thème ba ñu waxtaane ca loolu la jëm loolu lépp it jubluñ rek soññee ak eh, wane njàngaleem Serigne tubaa xam ne waxtu wu nekk jamono bu yëngoo rek moom day joxañ joxañ boo xam ne ku ko topp rek incha allahu ci jàmm ak salaam la ngay mujj. Cheikh Mamadou Moustapha di woote ak a soññee ak a fàttali ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekkal sëriñ bi ci lay wootee lii muy woote ndax di su yëkkati ci kër sëñ Mbàkke Kajoor te laa jësu ci ndigal gi fi nekkal sëriñ ba am ko ci ba noppi kon ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha ci lay wootee. moom mboolem ñi mu bokk sëñ Mbàkke Kajoor ñëpp ci jataay bii ñu fi teew ak ñi fi teewal ñëpp kër sëñ Mbàkke Kajoor yëpp tàmbale ci kër sëriñ Xamma Faal mi nga xam ne moo ci moo moo ci mag sëriñ Cheikh Kajoor mi nga xam ne mooy ab xalifaam mi ngi fi teew ci jataay bi non noonu la ko kër yëpp defee kon ci tu kër yooyu ci la ñuy wootee waaye sëriñ bi di fàttali ko itam rakkam ju baax ji nga xam ne bàyyi ko na fi ci fan yi di sëriñ Cheikh Mbàkke tedd doonoon amoon taxawaay ci bis bi di koy ñaanal di fàttali tam bokk yëpp ñu dolli ko ay ñaan fa nekk ba lim ñu fi nekkee woon ci àddina doon ko yëngu ci lu baax lépp yal na ko suñ borom nangul te fulal ko ko te dajale ko kilifaam yu baax ya di wax ne itam bis bii sëriñ Moustapha mu ngi koy woote ci turu sëriñ mboolem ñi mbokk sëriñ Mbàkke Kajoor di leen ko fàttali di leen ci soññ ca nam ko daa ànd ak ñoom waaye woote bi it ñu ànd kook njabootu Cheikh Mamadou Lamine baax gi nga xam ne danoo dëkkandoo dëkkandoo gu yàgg dëkkandoo gu rafet ci ci ci ci nekku ak njabootam gi nga xam ne ñoo doonoon doomi Cheikh Mamadou Lamine ak njabootu suñ Mbàkke Kajoor noonu lañ nekke woon ba tey jii Cheikh Mamadou Moustapha mi fi nekk di ab sët nekkal fi Cheikh Mamadou Lamine yebal fi sëñ Cheikh Thioro mii di rakkam yor kàddoom ngir mu ñëw teew fi soññe ci bis bi muy loo xamante ne lu baaxoo def la muy àndin bu rafet woo xam ne njaboot gi ànd nañ ko xam ne noo bokk leen bokk te mënuñu ko séddoo dëkk nañ dëkk gu yàgg waaye lépp rafet na yàlla na gën a yàgg te gën a rafet ci barke sëñ bi sëñ Moussa Cheikh Mamadou Moustapha mi ngi sant sëñ Moussa sëñ Sidi Mokhtar baax ci ab taxawaayam aku jàppam aku nekk ci wetam aku digloo gu mu koy diglu ca dëkk ba loolu sëñ bi mi ngi koy seeral ñëpp te di ci euh, sant bu baax te di leen ko yóbbante sëñ Cheikh Cheikh Moustapha te yoo xam ne bis bi ni nga ko waxee seen bisa noo ko bokk noonu la ñuy sant njabootu sëriñ Mbàkke soxna gi nga xam ne danoo bokk ak ñoom te sëriñ Mbàkke soxna ak sëriñ Mbàkke yëpp yi bu ñu ba noppi nu amoon ak jaxasoo goo xam ne ñëpp xamoon nañ ko loola tax luñ ciy def ñaari kër yi di benn lu kër googa di def waa kër gi ànd kook ñoom lu kër gi defit waa kër googa ñu ànd kook ñoom ñoom it ñu ngi rafetlu seenu teewaay di rafetlu teewaay bi waa sëñ Adama gi ñoom itam sëñ sëñ Moustapha gi ñu leen fi teewal ni mu ko waxee naka jekk sëñ Adama gi itam góllëre gi amoon ak sëñ Mbàkke Kajoor sàmm ko bañ bokk nekk Mbàkke Kajoor ñoom ñii fi desit ñu ngi koy sàmm kon sëñ Cheikh Fall mi di xalifaam yab la fi ànd woote bi kon li nga xam ne lépp benn la ñooñu itam li ñuy waxee monsieur le maire suñ maam moo si la ginnaaw boo xamante ni ñu lay nuyu te rafetlu kàddu yi di la wax ne la itam sëriñ bi nee na bis baa ngoog li ci wax ci ab taxawaay ngeen ko waaw ko taxawee na ngeen ko daan defee na ngeen ko ni defee yëgle ba nga xam ne mooy ca kaw tudd nga ko tàmbalee ci président ba ci sous-préfet loolu moom ci yow la aju sëñ bi bàyyi na ko ci sa loxo kon kon li ci war a am yow sa taxawaay boobu na nga ko taxaw dëkk ba itam ci waajtaayu màggal ga la fa wax ci ci wet goo xam ne soxla wees na ko fu mbooloo dajee xam ngeen ko taxaw leen ci ànd ko njabootam gi nga xam ne ñoom la ci jiital muy sëñ Modou mi nga xam ne moo fa nekk ak ak ak ak mboolem ay rakkam ak mboolem taalibe yi ñu ànd ko ak yéen di non noonu ñu ko waxee rek monsieur le maire mu ngi fàttali ko waaye mu jaar ci moom rek jàll ci ñoom ci commandant brigade bi nga xam ne moo nekk daawu Muxti waaye sous-préfet bi ak PAF bi ak commandant bi nek daaw mën ñom ñoom dal ñu yeggal leen ñi ngi leen ko yeggal ci turu serigne bi waye diko ko ci monsieur le maire bi nga xamne mom moy mooy yëngu ci gogu wet leneen li cey doli ko yit moy euh, serigne bassiou mom serigne Abdoul Majid jaar ci kaddom jóge ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Moustapha mu wax ndigal lo xamne serigne Habib moko ko ba bi sos magal gi ci njabootu serigne Mbàkke gep gépp wax waxoon ne su wew ko gi teerootee gep ko aju ci serigne Mbàkke na nga jàng ñaari kaamil yu sell benn bi nga def ko addi sëriñ tubaa benn bi nga def ko addi sëriñ Mbàkke Kajoor kon Cheikh Mamadou Moustapha mi ngi fàttali ndigal loolu ñëpp ñu aju ci kër gi ak bépp jullit bu ko dégg te man ko nga def ko jàng ñaari kaamil benn bi nga def ko addi sëriñ Touba benn bi nga def ko addi sëriñ Mbàkke Kajoor jote wut ak nag njàng ma ñuy jàng ci bis bi loolu itam sëñ bi mu ngi koy fàttali te du ci soññee te xam ne dara gënu ko itteel ci loolu ndax sëñ bi léppam alxuraan la noonu itam ñu ngi koy lañ koy yëgale général Maysa Ñaŋ moom di kenn ci njabootu kër Sëñ Mbàkke Kajoor moom kenn la ci kër gi xam naa tudd ko du mën a ñàkk rek waaye moom ci ñiy woote bis bi la bokk ndax ci njabootu kër gi la bokk kon sëriñ bi mi ngi koy yëgal mbooleem jullit ñëpp ak fu ñu mën a nekk di ko yëgal mbooleem mbokk yi ñu mbokkal maam maxawam mbokki mbosoo bi mbokk yëpp ñu ngi leen ko yëgal di ko yëgal mbooleem njaboot sëriñ Tuubaa gi di ko yëgal Seex si di ko yëgal bokki taalibe yëpp di itam sant ak soññee ci liggéeyu bis ba ak taxawaay ba ci daayira bi nga xam ne sëñ am ni Moustapha Diop doon wax seen kàddu te ñoom ñooy organisation bis bi sëñ mi ngi leen ci sant ci li weesu waaye mi ngi leen ci soññ ci liñ jëm ñu gën cee taxaw jàpp ci bu baax waaye suñ mbàkke ndong daayira bi nga xam ne mooy daayira ko suñ mbàkke jaw bi tam ñu gën a taxaw ñoom it ci seen pasif si itte sëñ bi ngi leen sant waaye dañ gën a taxaw ànd ak seen mm, kilifa yooyu ci topp seen ginnaaw ci liggéey bi ba liggéey bi mel nu kawee na ko sëñ bi bëgge di ko yëgal itam alhaaji maam Cheikh nam daaw mënaan moom itam ñu ngi koy ñu ngi ko koy yëgal ndax moom itam ak bokk ku dëkkandoo affaire gu yàgg waaye di fàttaliku nag koo xamante ne it dafa doonoon ci jàmbaar yi nga xam ne ñu daan taxaw ci bis bi lañ di doonoon sunu doom doonoon jàmbaar lool di Cheikhouna Diène ñu ba nga xamoon ab taxawaayam ci kër Sëriñ Mbàkke Kajoor waaye ci bis bi kon moom itam sëriñ bi mi ngi fàttali mi ngi koy fàttaliku waaye di soññi ak di sàkku ci bokk yëpp ñu ñaanal ko dolli ko ñaan sunu borom dolli ko yërmande ak njégal fa mu nekk ci bàkk bi sëriñ bi bokki taalibe yi nga xamante ni bii ñoo ngi doon déglu yaakaar na kàddu yi leer na te wér na muy bis boo xamante ne bii doom juy seeti baayam ak taalibe buy seeti sëriñ buy seeti ab taalibeem waaye nag baay buy teeru doomam ak taalibe buy teeru ab sëriñam daje na ca mooy ñeenti ñeenti mbégte yëpp Cheikh Ibrahim borom Mbàkke Kajoor yaakaar naa ne ku ne xam na ne. ginnaaw bu Serigne Touba noppee gis sëñ Mbacke Mor Anta Sali taxawaay ya ko war yëpp taxaw na ko ba agsi ci sancub Touba ba ni sëñ bi demee ci géej gi bi sëriñ bi del siwaat it jaari waat fa moom mbégte moomu mel ni mbégte ko koo féete kaw am na ngërëmul wayjur waaye am na ngërëmul sëriñ am na ngërëmul doom waaye am na ngërëmul taalibe yàlla ñu fekkee loo bis boobu bis baa ngi noonu nag ñu wax ne programme bi bu ñu àggee ci koor gi am na benn taabaroon boo xamante ne bii danañ ko def ci dunduk sëriñ Adama Gueye ak Serigne Mbacke Kajoor incha allahu rabbi dégg ngeen bokk yi niñ ko wootee kon Serigne bi nee ne mi ngi woo buntu kër yi Serigne Touba yëpp bàyyiwul benn buntu kër waaye di woo nag buntu kër yi taalibey Serigne Touba yi ña njëkk a jaayante woon ca Mbacke Kajoor ak ña jaayantee ca Mbacke jaayantee ci Daaru Salaam ak ñi jaayantee Touba fu fi waaye a jaayantee rek ñi ngi lay woo ca daara ju mag joojee nga xamante ne bii fa la yoonu murit sosoo di Mbacke Kajoor ñi ngi ñaan képp koo xam ne teew nga fa yàlla mi mën a faj aajo yàlla na faj say aajo ci darajey Serigne Touba Xaadimu Rasul barkeb Cheikh Ibrahim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu